barki Serigne Bamba DG DG tey sa discours bàyyi ma ngi nii waaw bàyyi. DG sa discours bi amatul. laa ilaaha illallaah barki Serigne Bamba sama waajaa ngi nii. kii sama kii au vert bi laay. waaw man DG sa discours bi amatul DG. parce que Serigne Do tey moom non DG je suis fier de toi la lafal cat yàlla borom Tuubaa yàlla na la lafal cat DG laa ilaaha illallaah waaw waaw barke borom Tuubaa yàlla na la yàlla fa ca. waaye tey bi réew mi jël. dana xam na ni ku juddu jël na kaddu. di ku am. nga jëlee kat. kenn du ko am na tubaarkalla macha allah ku bëri nga jëlee kat.